Thank you. salaamaaleykum suñu mbokk téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam di leen fàttali seen émission waañu maam fii ci RTS 2 duggoon nañ nag Grand Yoff waaye nag génn ñu ba léegi ndax suñu beneen émission bi ñëwoon nañ fi tourné euh, teere mbuub ci suñu benn maam bu tudd ba tey nag ñu ngi fii quartier Santhiaba ñoo seet si suñu benn maam waaye nag laata ñuy xam suñu maam lan la ñu toggal dañuy dugg ci biir dem seet ko nuyonteeg moom jaamasante ak moom laaj ko lan la ñu indil ci émission waañu maam topp leen salaam waaw maam boy dafa mel si waañ bi de waaw jiitu naa ah? la moom di la xaar yaa ngi boyal furno bi teg cindi euh, li ma gis nii mooy lii nu mu tudd la tudd ah sànqal la dugub suuna mooy dugubu suuna dugubu suuna waaw tey nga ñu indil ci émission waañu maam waaw euh, bala ñuy dugg na ci bir waañ bi ma bàyyi la nga nuyu ak suñu mbokk téléspectateurs yi mm-hmm. après nga wax ñu lan nga ñu indil ci émission waañu maam waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant maa ngi leen di bëgg a indil togg maam yu njëkk ya ndax maam yu njëkk ya mhm. dañ daan togg togg yoo xam ne ah boo ko lekkee day dal di rees te du la indil benn problème boobu tension amul mhm. xamuñu jabet mhm. xamuñu yi yëpp ndax togg yi lañ daan togg waaw kon nag loolu nga ñu indil tey euh, ci émission waañu maam ñu la ciy gërëm bu baax Euh, ñi di wax suñu mbokk téléspectateurs yi tey ñu ngi fii Grand Yoff quartier ba ñoo seet si suñu benn maam bu tudd maam Rama tey nag nee na sànqal bu suuna la ñu indil sànqal suuna boobu nag fii lañ koy béyee ci suñu réew kon nag nee nañ leen émission waañu maam lépp loo xamante ne ci suñu réew lañu koy béyee moom lañ ñuy jëfandikoo tey nag dañ leen ne laama bu ne dinañ la dem seeti ñaw nga indi la nga toggal ñu togg maam tey nag maam nag comme indil nga ñu sànqalu suuna ma bëggoon nag euh, gis naa ni cin laa ngi bax furno bi boy na nga ñu jóg nga wax ma li nga indi lan ak lan ak lan nga indi ci euh, ci li nga xam ne looloo jëm ci sànqal bi nga bëgg a togg table bi vraiment yanj na lépp loo xamante ne suñu réew lañ koy béyee moom laa fi fekk. waaw euh, nga ne li nga bëgg togg ci waañu maam nu mu tudd. ñeleng la tudd ñeleng sëf. ñeleng sëf. kon nag euh, suñu mbokk téléspectateurs yi ñoo ko euh, déggandoo suñu maam Rama nag mu ngi ñuy toggal toggu maam muy ñeleng sëf. tey ñu ngi fii Grand Yoff ñoo seet si suñu maam bu tudd mère Rama Diouf fas yéene ñu toggal nag ñelang euh, ñëpp ci jàpp nag gis ngeen ne ñelang bi xam naa ne bu paree moom euh, daañu ci kontaan ndax lépp loo xamante ne fii ci suñu réew lañ koy béyee moom la ñuy jëfandikoo. ñeleng bi façon togg bu ne mën nañ ko ko ci togg mën na nek ciép bu ko ne bu ñu nexé togg ko ciép bu ko bu ñu nexé togg ko ñaari ci kon nag tay mom ñaar ci lañ taw kon nak acca bok li nga yor ni lan la soble la soble bo xam mag ñi ñoo koy defar. waaw ñu jëlee soble bu xaw a nooy. waaw ñu dëbb ko dëbb ko dëbb dëbb dëbb dëbb bu mu mokk ñu tànk ko weer ko. naaj bi weer ko ci naaj bi wala boo amee foo xam ne mën na wow te du naaj nga bàyyi ko fa ba mu wow koŋ. Mhm. nga denc. soble bi booy togg maafe rek. nga def ci. soble bi noonu rek ngay koy. noonu rek nga koy dëbbe. waaw noonu rek nga koy dëbbe bu la neexee sànni ci tuuti xorom nag. Mhm. kopp saale ko ba mu nooy. waaw nga dank ko comme nii. nga gis nga ko. raxas naa ko rek mu daal di tas. mu daal di foofu nga koy dëbbaat rek. daal di ci biir lay dugg rek waaw kon nag aca bokk. Euh, gis ngeen ni euh, def na ci gadege bi ba pare ñu ngi teg euh, cin pour tey sànqal bi. nga jël sa keccax. waaw ak sa géej. géeju euh géeju tumbulaan. tumbulan bi bu mu tuddu tumbulan tumbulan waaw. ma xol lu mu mel. tumbulan bi tumbulaan. waaw léegi moom ngay bolé waaw kon dafa melni togg bi géej yépp nga ciy bolé waaw parce gaji, bu gaji, da nga gaji, laal tuuti gaji, def nga gaji, Tambaña. waaw gaji, géej tumbulaan. def géej koom. def géej koom keccax gi ak keccax waaw ñeleng bi am na togg yu bari yoo xamante ne mun nañ ko ko toggee eh, ceebu jën ku ko bëgg togg mun na ko toggee ak ceebu jën eh, ku ko bëgg togg mun na ko togg ak leneen kon nag euh, boo bu bëggee mhm. ba tey boo bëggee mën nga ko def bu mboq nii ma koy defee nii mhm. bu dee bu mboq mën na ko euh, am na ñelengu mboq mboq am na ñelem dugub bu bësi mën na ko dugub bu bësi mooy ban mooy euh, borom pepp bu pepp yu dijj yi am bu weex waaw waaw baax na man maa ngi jàng de mu ngoog sama maam ak may jàngal mu ngi noonu <laughs> maam eh, ñeneen bi presque paré na. waaw des lu dul ñu débarrasser xaar mu baral tuut mu ñor. ñu doga a yekk. waaw noonu la ñuy nekk. baax na kon nak eh, ñu xaar. légui patasse bi rek mo dess waaw ku ñor na patasse bi kese mo dess waaw pataas doo ko mëna téla def. parce que day gaaw ñor. waaw parce que day tas tas. Mhm. moo tax mom ngay mujjé def. kon nak eh, nañu jog ñu jéma débarrasser waaj bi. fomp ko ba mu set. xaar na mu ñor ñu ñëw yekk ko. Nous nous li euh, final euh, remercier rts remercier Euh, ci euh, vraiment am jot gi nga xam ne ñëw nga ñu toggal euh, ñeleng bi ndax togg yombul di la sant di la gërëm di la wax ni togg nañu ñeleng bi mu jaar yoon ma bàyyi la kàddu gi parce que xam naa ni am na ñi nga xam ne mun nga leen may togg bi nga nga remercier leen gërëm leen après nañu woo ñi nga xam ne ñu ngi fii say am di jàmm say dëkkandoo ñëw reer ak ñun ci ñeleng ndax lii reer bu neex buñ togg la. maa ngi leen di jaajëfal yéen itam. Mm-hmm. gërëm leen sant leen kenn ku ñu di turam ak santam sama xol sedd na lool kontaan naa ndax dëkk bi yaatu na lool waaye yàlla boole ak yéen ba lii yëpp amun fee am tey may gërëm nag sama dëkkandoo yi yëpp nag Grand Yoff yëpp gis nga koñ bi kenn desul ñëpp teg seeni ite di ko toog nii la ñu mel ci man du ma xewle rek ñoom dañuy bàyyi seen itte yépp ñëw ci man ànd ak man ci xew ba mu jeex tàkk ñëw fay jëkk ñëw fay mucc samay doom lañu daal yoo xam ne du ñu def dara te waxuñu ma ko palaa bi daal nu mu mënti mel rek may naa leen ko